Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. jërëjëf mbokki internet yi ñuy topp ci Tawfekh Production euh, di seen chaîne bi nga xam nag yéen a koy am ci YouTube bi euh, ñuy amal euh, émission entretien boo xam nag ñu ngi waxtaanee wàllum actualité lépp lu soxal réew mi tey ji nag suñu beneen numéro bi nga xam nag ñu ngi dalal honorable député monsieur Diakhaté ñu ràññee ko baax ci pencum réew ma pencum ndaw réew mi di assemblée nationale honorable ñu ngi lay nuyu. ñu ngi li ñuy waxtaanee rek bokk na ci actualité réew mi. rawatina politique euh, tey ñu xamale ci bu baax euh, démb opposition bi euh, ñi nga xam nag ñoom ñoo di kujje gi am nañ dox bu ñu amal démb ngir am la ñuy ŋàññi kilifa ak réew mi yow jaakaar naa am nga xibaar ci marche démb bi nan nga ko jàngate xanaa nag loolu dafa am solo ci démocratie defe naa ni li li li li li mooy pouvoir bu ne dafa war opposition mais defe naa ne opposition bii nga xamante ni ñoom laa gis démb xam na leneen lu leen waroon gën a ñor tey lu dul boobu dox parce que bu dee mm, euh, ndox mi dafa ñàkk mais ñun ñoo leen gën a xam ne ndox mi dafa ñàkk parce que euh, ñun le président de la république yàlla def euh, ci ay mbaggam la réew mi reposé wu. ñoom ñi nga xam ni saa yi ñu xëyee ñi ngi distribuer citerne ndox yi ñaari koñ yoo romb ñetteel ba ñu taxawal fa citerne ndox léegi bërigo yi ni roote daanaka ci mbedd mi la dëkk kon ñun xam na ne ndox amul waaye nag lan moo tax ndox amul mooy ndox moo manqué te euh, euh, pour nga liggéey liggéey bu jaar yoon il faut nga planifier ko xam nga bi nga xamante ni yàlla def na ñuy jëlee Lac de bi ndox mi di Lac de di ko indi Ndakaaru euh, fu mu jaar rek bi mu déparé ba bi muy yegg si Ndakaaru fu mu jaar dañ leen a génneel ay tiwo le président de la République liggéey bi muy liggéey mooy liggéey boo xamante ni bu ci jógee ñu problème mu ndox Sénégal daf lu mu lu mu lu ñuy toog di ko fàttaliku la lay doon waaye lu jeex lay doon parce que ki nga xamante ni ndox mënut ñàkk xam na ko ba mu jël 10 milliards def ko ci ndoxu géej gi pour ñu dessaler ko gas ay ay ay ay forage yu bees yoo xam ne day fekk forage yi fi nekkoon ñu lënkale leen pour problème mu ndox jeex Sénégal euh, euh, defe naa ne loolu du lu bees du lu bees loo loo xamante ni sénégalais yi da nga leen koy wax euh, ñoom am nañu leneen lu leen waroon a gën a ñor defe naa ni tey ji euh, lu dul lu dul lu dul loolu waaw li leen waroon gën a ñor mooy ñoom nu ñuy def ba ba ba juboo ñu ñuy def ba am candidat defe naa ni loolu moo gën a ñor tey yi ñuy def yëpp parce que tey li lii am solo mooy am candidat préparé wàcc ci askan wi parce que ñi nga xamante ni ñooy bokk ci jongante bi di ñëw askan wi ñoo koy définir kon defe naa loolu moo ëppoon solo yii ñuy def nii. waaw mais mais ci wàllum ndox mi tamit bu ñu gisee nga ne nga ne planifié tey 2013 nañu président Macky Sall ah, gis nañ jafe-jafe amoon ci ndox. léegi ba tey jii mu ngi ci juróom-benn xam nga boo nee bu ko jël ci juróom-benn at da nga koy jël 1960 à nos jours xam nga li ñu dund jamono yii da nga naan 1960 à nos jours biñ ne ndox am na Sénégal ak léegi ay robinet génn na Sénégal ak léegi xëy na mosuñu ko dund lu waral loolu mooy planification bi xam nga la président la République 2012 la ko yàlla jox réew mi yàlla def daal teg. taw tawam mu def inondation waaye defe naa ba mu ca liggéeyee ba pare ca def ca plus de soixante milliards ges ko ba mu xóot mu suul ko ci suuf si liggéey ay canalisation yoo xamante ni problème inondation ci kàttanu yàlla bu nu yàlla dimbalee Sénégal dina ko yeexatee dund eh, yooyu liggéey moo am solo bu leen defee ni ñi fi jëkkoon na nekk xamuñu ko xam nañ ko day fekk muy liggéey yoo xamante ni ay milliards nga ciy def alors que kenn du ko gis ki ko mën a gis rek mooy ki nga xamante ne xam na ni fii ndox daan na fi jaar bu mu sànni wicc wicc moom mu takki bagaasam kooku moom sentir na ni le président de la république def na li mu war a def ci inondation yi noonu lay demee ci ki nga xamante ni man euh, deux mille euh, mille neuf cent quatre-vingt-treize laa dëkk Scat Urbam bii ci wetu foire bi nga xamante ni deuxième tranche su cité kër xaadim bi kenn tabaxu ko su ma taxawoon ci sama kër damay jàkkaarloog mobile ba ca Grand yoof trois heures di matin la ñuy jóg di root ala kulli yow min mbala doo am ndox wala nga nekk borom doole def réservoir def flatteur nga xamante ni day day duy ca kaw bu bu robinet yu ubbee bu bëccëgee mu yendoo xel te ñooñu loolu yàlla jagleelu ko euh, kenn ñëpp alors cité Fadia gi ma dëkk actuellement may wax ak yow dañu dañu gas teen nga defee ne loolu méttiwul. dañu gas teen di ko it dama la ni dañu gas teen di ko utiliser ndax ñàkk ndox mais loolu kon bu mu gisee koo xam ni mi ngi liggéey pour jafe-jafe yooyu nga xamante ni man dama la ni 1993 laa fa dëkk te ba léegi loolu la ñuy dund loolu jeex ñoom dañuy sant bu loolu jeexee. mu dëgg la mooy. comme jafe-jafe am na bu ñu tudd jafe-jafe mais nañu xool nañuy def ba nañuy xool euh, taxawaay bi ci kilifa bi. le président de la république nag monsieur Macky Sall mooy jafe-jafe ba mu jànkoonteel bu la jàggee ruur law jooju wax jeex mu jàll ci leneen loolu mooy liggéeyu normal mais taf taf yëngal boobu dafa war a jeex Sénégal Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à